Roma aousbillah min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ànd ak ñun ci seen télévision Mafatihul Bichri TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di am mbégte rek saa su di ànd ak yéen ci seen télévision Mafatihul Bichri TV xam ngeen ne rek ngir dund li nga xamante ne ni moom moo di màggal gi Mafatihul Bichri TV dafa indi équipam fii ci Touba lépp ci waajtaay wi rek incha allah ñu fas yéene ànd ak yéen ci programme yu mucc ayib programme yu am solo macha allah ba lenn du leen raw incha allah euh, ci ci màggal gi ba tax na rek ñu nekk ci alentour jumaa ji macha allah gis nañ ni waajtaay wi macha allah euh, mi ngi tàmbalee euh, tàmbale na bu baax a baax a baax gis nañ ne dem beeg dikk bi tamit tàggatémbe na waaye ba ñi nga xamante ne nii macha allah ñoom ñoo di jaaykat yi tamit tàmbale na yi nga xam ne moom moo di seen liggéey xam naa rek kon Serigne Mor nees tuur dañ ñu daal di ànd ak ñoom. ñu wax ñu li nga xamante ne nii moom la ñuy dundee màggal gi. maa ngi tudd Cheikh waaw liggéey mi ngi sant yàlla bu baax a baax. ñu ngi waaj màggal gi baax a baax si fànn yëpp. maa nga wecceeku ay xasaayit ay maxtu ay njël comme bagage yi nga xam ne mooy bagage si murid daal loolu ci la njëngu waaw instant yi mi ngi sant yàlla baax xam nga liggéey moom ñu ngi sant yàlla baax daal mi ngi xewal baax mi ngi xewal baax wax dëgg yàlla. ah ñun man ma ñun ne moom fi leen dëkk ñun secteur bi ñu jaay ñii yëpp fii leen fi leen yëngoo miir suñ fal bi fi leen nekk di daan suñ doole fi leen yëngoo daal waaw waaw gi moom wax dëgg yàlla màggal la koo xam ni nu ko taalibe yi di waajale jéggi na doy ndax kenn ko ne li ñu ci def ren dangay ngay ñaan yàlla ëllëg nga def lu ko raw lool waaw non prix moom duñ ko mës a yokk dañuy wàññi li def koy ndax pa taalibe yi mën ci mën jaruñu ndax yëfi mu rek la ñuy weccee ñun yaa ngi gis bagage yi nii ay photo la ay maxtu yoo xam ni ñu dañ koy barkeeloo loolu rek la ñu yëngu ci wàllu liggéey bi moom suñu liggéey daal te incha allah prix yi ñu ko def prix xew la ndax danoo bëgg taale bu ñëw rek am yóbbal am yóbbal ngir sa njaboot moo tax prix dañ koy defar prix bu baax prix xewale liggéey ko liggéey bu sell murte ngir ñëpp mën sa jariñ daal ndax bis bi bis ñëpp la waaw jërëjëf waa soxna ngeen jëf mbokk yi ginnaaw bi ñu jógee ci sëñ bu baax bi di jaay wàllum njël yi rek nees tuut ñu daal di e, fekk fi ki nga xamante ne ni moom it macha allah dafa ñëw lépp ci waajtaayu màggal gi rek ngir daan fi li nga xam ne moom moo di dooleem ba tax na rek ñu fekk ko mu jaay ay tàndarma xam naa sëriñ bi dañ lay bàyyi mbokk yi rek. man maam Góor Gueye laa tudd maam Góor maa ngi leen nuyu lu bari bari ñu sant bu baax a baax waaw waaw ñu sant baax yàlla moom mi ngi tawfeex baax ah, ah maa ngi moom dégg nga ko sant suñu Bàmba rek sant suñu Bàmba gërëm am Serigne Fall rek waaw. waaw Issa moom tànn ba moom yàlla moom njaay moom màggal ak yooyu moom yëpp màggal moom xam moom loo jaay mu dox moom waaye bu dul màggal lay dox moom ñu ngi sant baax daal moom ñu ngi sant baax moom màggal yi ngeen dox moom màggal yi moom loo jaay mu dox moom suñu Bàmba woote waaw bu doon waaw ja moo ñu may jaamu daal waaw moo ñu may jaamu daal waaw waaw man fii moom dama fee nekk dama fee nekk rek dama fee nekk non man non ndax fi laa jaay nekk fi nekk ndax nekk fi laa nekk waa. jërëjëf mbokk yi ba. nekk maa fi noor nawet fi laa nekk. waaw ci li gën a tawfeex moom ci a tawfeex moom moom Tuubaa moom loo jaay mu doomam yaakaar naa suuf si bëgg ma sax yaakaar naa jaay yaakaar naa mën a doomam macha allah. tey yéen a ngi ànd ak ñun ci seen télévision Mafatihul Bichri TV gannaaw bi ñu jogee ci jaaykatu tàndarma bi macha allah eh, dañuy ñëwaat rek ci benn mbokk taaliba boo xamante ne mi ngi jaay ay maanaam ay kurus ak ay li nga xamante ne nii lépp lu ap talibe di soxla rek moo xam maxtuum la moo xam euh, ceinture yi nga xamante ne nii dañ koy takk ci ndigg yi moo xam tamit ay njël la waaye xam naa kon dañuy daal di ànd ak sunu mbokk mi rek macha allah mu wax ñu euh, li nga mu wax ñu li nga xamante ne nii moom lay dundee màggal gi. Sëriñ Sonko laa ngi leen di bi. Bichri TV maa ngi leen di siyaar te di leen ñaanal Bichri TV jëm kanam comme ma fàttali Bichri bi sëñ Tuubaa bind. am na yaakaar ne nag Bichri TV dañ jëm kanam waaye soxna si maa ngi leen di wax ne màggalu Touba ñun ñi nga xam ne ni ñooy jàllale bagage yi di kuréel si jalambaan yeeg takkaay jalambaan yeeg maxtume yeeg yi sant nañ ci sëñ Tuubaa sant goo xam ne nii mënee su koy wax maanaam am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax li ëpp si suñ yitte si mag si su ñëwee su màggal gi ñëwee mboolem li ñu woon dañ ko siy saafara. xam ne manees nay wax ne suñ bëgg-bëgg àdduna ak lu ñu war a defar fii su màggal gi weesoo lépp day mën a doon ab takk boo xam ne ni dana daje ñu mën ko si def def si lu am solo màggal gi daal ñun rëccuñu ko te duñu dañ koy yàkkamti mu ñëw suñ sañoon day am ñaari yoon ci an mi ndax andi na ndax wàllum koom mi ndax andi na koom si mboolem ñuy ñuy liggéey si mbedd mi maanaam niñ mën a a jàppale nag waa mbedd mi si màggal gi loolu maa koy fàttali maanaam euh, ñu ñu saytu ñu yor màggal gi niñ mën a jàppale maanaam ñu daan liggéey si mbedd mi ñu yolamal bañ liggéey si mbedd mi ba gañ a xaalis bi nga xam ne ni suñ ko gañee si dëkk bi lay des du génn réew mi ndax képp ku fi gañee sa kër nga jëm tëg sa kër génnut Sénégal loolu maa ngi koy mboolem ñoo xam ne nii ñoo am baat si Touba am baat si dëkk bi yor euh, communauté màggal gi ñu ko jaaykat yi man nag maa ngi jaay téere ak kurus di ñaan borom Touba màggal gi dàq màggal gu mos a ñëw te képp koo xam ne nii mos mosoo màggal si yàlla may la xéwal nga màggal si képp ku mos a ku a màggal si yàlla na yàlla def nga màggal si te nga ñëw si jàmm benn problème nga bañ koy am ñibbi si jàmm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ngeen jëf mbokk yi ginnaaw bi ñu jógee ci ki nga xamante ne ni mu ngi jaay ay kurus ñoo ngi ci sunu yaay booy macha allah muy jaay lépp loo xamante ni dafa jëm ci ndékki wala sax añ xam naa kon euh, sunu yaay booy nuyu nañ la. njaay mi nu mu demee daal njaay mi moom asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen mbokk yi man asalum laa tudd dëkk Gede waaw liggéey bi nag moom tuut rek lañuy liggéey ndaxte fi ñu toll nii daanaka amuñu ay place fi ñu toog muy dox ndànk-ndànk rek ñu ne dox moom dana dox de ndaxte benn yi du tee njaay mi lay dox waaw dana dox moom ñu koy bu ñu amee place moom bu ñu toog rek fii moom dana dox moom waaw ndax fii moom ndox ak ndékkeeg añ fi dox waaw loolu fi dox macha allah njëriñ man Touba gi laa dëkk man Touba laa dëkk waaw. waaw yàgg naa fi jaay na fii lu juróom-ñaar at maa ngi fiy jaay nii bu dara xew waaw dama fiy jaay waaw. bu màggal gi nag moom bisu màggal ñun duñ jaay si duñ jaay si dañuy gan yi ñu jaay. jërë ngeen jëf mbokk yi ginnaaw bi ñu jógee ci tali bi rek ñoo ngi fii ci kër euh, sëriñ bi macha allah fekk fi ñi nga xamante ne ni ñu ngi yëngu ci wàllum tabax xaw ma euh, tabax ngeen di def xaw ma karale macha allah sëñ bi nan nga tudd. man Paul Sade. sëñ bi Paul nga wax de. Paul Sade laa tudd Paul Sade. jullit la. non non chrétien la. lan moo liggéeyal sëñ Bamba rek. waaw. non non damaa ñëw liggéey rek. waaw damaa ñëw pour liggéey Serigne Touba. dama kaa bëgg sama xol laa ko def. màggal bi ñu ngi koy préparé rek. waaw ñu ngi koy dundee liggéey fii ba heure màggal jot ñu daa dem mhm. daa fay nekk daal di màggal bu jeexee après ñu daa ñibbi. <laughs> <laughs> non nan ba si kanam rek am nga na xam waaw. <laughs> gëm naa ko kay. Mhm. waaw pôle pôle mu Serigne Touba sëñ Kasu Mbacke moom moo ko doon woowee sëñ Kasu Mbacke bu dëkk Géejawaay man Géejawaay laa dëkk sëñ Kasu Mbacke moom ma woowee pôle bu Serigne Bamba léegi après tur bi dem ba siiw ñëpp dama woowee pôle bu Bamba waaw ndax damaa bëgg sëñ Bamba waaw. ñun ay carreleurs nañ ñooy carrelé fii nii waaw ñu ànd ànd mooy sama patron moo nekk ne mooy sama patron waaw mu ngi avancé bu baax a baax ñu ngi koy liggéey daal. balaa maa ko incha allah mu pare kii kay vendredi la mu pare ñu daal pare incha ma vendredi su paree damay damay dem kër sëñ Kamal màggalee fa magal bu jeexee incha allah fi am ay xam naa am na lu ñu fa war a ko waaw incha allah wallaahi waaw amiin waaye.